Yalla fi Ay, taxaw leen noonu xaar

toll noonu. man la ko wax. li ñëw moo toll noonu. waa bi day am changement. gerte góor yi dañuy ñëw. yéen arrière tuuti mbër arrière la ngir yàlla quoi. wallaahi yéen a man mënu ma leen wax dara. yaay puy musidɗo karim garame dafa andak ay yayam ngay mbaye loolu ñu ñu toog eh kenn leen loolu gën a toog alal leen ñun ñëpp arrière leen ay ca gën a mi nañ toog suñu marraine bi ñëw na dem leen toog moom mi nga xamante ni si mooy communicateur biñ délégué yëf yi kuy wax nag na nga laaj Abdou mu jox la kaddu kaddu yi bañ a jógee ci kilifa soxna na bu bàcc li. soxna na bu bàcc li. chaque jour nga gis fii ay kilifa. chaque jour nga gis fii ay kilifa. doo ma fi gis. doo ma toog laay toog. yore sama kurus. yore sama di ñaanal sama doom. di ñaanal sama doom. ngir mu am ndam. ngir mu am ndam. waaye tey li tax ma jóg. waaye tey li tax ma jóg. bu ko def yëfi géwél. bu ko def yëfi géwél. ñu xam ni. ñu xam ni. kii fi toog. kii fi toog. jëmmi. jëmmi. sëñ Abdou Karim. sëriñ Abdou Karim. Mbakke. Mbakke. la fi tooge. la fi tooge. kon. kon. dama bëgg. dama bëgg. ñoo am yar. ñoo am yar. ak dal. ak dal. sànq ba léegi. sànq ba léegi. nit ñaa ngi fii ñëw. nit ñaa fii ñëw. jegewu ma fii. jegewu ma fii. jëlu ma kaddu. jëlu ma kaddu. waxu ma. man mii nag. man mii nag. cër bii nekk ci man. cër bii nekk ci man. Serigne Moustapha moom sëñ Massamba. Serigne Moustapha moom sëñ Massamba ko def ci man. moo tax fu ma leen fekk. moo tax fu ma leen fekk. jox leen cër. jox maa ngi koy wax léegi. maa ngi koy wax léegi. dama ñëw ci sëñ Abdou Karim. dama ñëw ci sëñ Abdou Karim. ñuy waxtaan. ñuy waxtaan. keroog maa moom. keroog maa ngi moom. ñun ñaar ñëpp a ànd. ñun ñaar ñëpp a ànd. di jooyoo di jooyoo. ngir. ngir. dama ni ko Mbacke. dama ni ko mbakke da nga fee war a yàgg lool. da nga fee war a yàgg ndax yow sa yàgg. ndax yow sa yàgg. am na njariñ. am na njariñ. te damaa bëgg. te damaa bëgg. loolu dama koy dagaan Serigne Touba loolu dama koy dagaan Serigne Touba. ak Serigne Massamba. ak Serigne Massamba. nga wér. nga wér. Ndeysaan mujj gi. Ndeysaan mujj gi. maak moom yëpp ñu àndandoo. maak moom loolu moo ma dugal fii. loolu moo ma dugal fii. ngir ñu dal. ngir ñu dal. ndax moom mii. ndax moom mii. mami mii. mami mii. dafa jël bis bi. dafa jël bis bi. duppee ko ko. duppee ko ko mu doon marraine na muy marraine bi. muy marraine kon bu dikkee. kon bu dikkee. dama bëgg ñu dal. dama bëgg ñu dal. ñu waxtaan ak moom. ñu waxtaan ak moom. ci njek ci njëkk. ak teraanga ak teraanga. jox ko kaddu jox ko kaddu. mu tontu mu tontu. ngeen yeewi ko nag. ngeen yeewi ko nag. soxna Fatou Bintou Pouye loolu rek laa ci bëggoon a wax. léegi mbokk ginnaaw bi ma leen nuyoo. Ah, nanu ko tal seet mu toog léegi dama bëgg. soxna Fatou Bintou Pouye ay waajuram danoo toog te moom ku xam na ni dafa fonk ay waajuram moom amul lu dul ay waajuram dafa bëgg ñi nga xam ne mën nañoo àgg suuf ndax barab bii ñu ne dafa tàng ñi nga xam ne mën nañoo àgg suuf ngelawaay ngelawaay ngelawaay nañu àgg suuf bàyyi ñii nga xam ni ay cameraman lan ak ay sénébeur ak journaliste yi ñoom ñu doxal seen biir mu taalal sa téléphone ndax kii egg si danoo waree wane jëfam war a wane toogaayam na sëpp gis ko ndax moom lu baax li muy amul xàjji amul seet amul ma amul ma dem soxna na bu bàcc li Fama jigéen moom mi ngi nii ci kanam dina dinaa ko jox micro Alaaji Ada Xasaay yow boo fi nekkee donte ñun ñoo yor communication bi waaye amatuñu parole ndax yow sunu mag nga sunu xarit nga yaa teete ba ñu egsi fii ñu tey tat ku ku ñëwee ku nekk da laa déey teen yéen nu déey ndax yéen la ñu gis ngeen di wax lu baax di ko def amooleen leen sàmba amoon leen ma dem ba ñu gis loolu ci yéen ngeen doon sunu roy kon ñun boo fi taxawee ñun amuñu kaddu kaddu gii ma yor nag kaddu Mamy la ak les jeunes entrepreneurs yëpp su ma ko présenté ba noppi li nga xam ni moom la yoonu murit xam dinaa ko def ndax kaddu gii ma yor kaddu Mamy mii ak les jeunes entrepreneurs yëpp yàpp yi nag gàcce nga laama jërëjëf baat gu gàtt la waaye ku dara doo ko dégg merci baatub tubaab la waaye ku jëful dara tubaab du la ko mooy yaay puy yaay puy ak moom mooy moom waaye di nuyu ajaratu Sophie Ndiaye laa Sophie ajaratu Sophie Ndiaye mi jóge Makka barki démb maa ngi lay nuyu sa lépp di yaay puy nga fonk yaay puy loolu bëgg ko di la wax yaay puy mamee ngi lay gërëm mam yaay Evans li waajuram góor bu taxaw léegi wax ko Baye Mansour yaayam ju baax ji wax ko loolu laa lay wax nii bépp xale bu nekk ci foire bi képp koo xam ni bokk nga ci foire bi mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm lu musa am nag su amee dañ koy wax yaay puy bi ngay dugg si daa tombeek yàlla ji di taw loolu mooy sa dugg si ndakaaru xéewal la yaay puy sa dugg si ndakaaru xéewal waaye nga bàyyi ñoŋ na bu bàcc mu nekk suñu yaay ñu lay wax jërëjëf yow nag sa marraine ci foire bi sa digganteeg Mami Evans à ville dañoo bëgg nga xam ni yaag say bokk sa marraine bii à ville at muñ ko tëddee tëggee rek yaay suñu marraine ndax léegi la fi fay jóge doon na la xaar waaye ku ne xam na ni rek jot moo yombul ak heure bi gaaw te yow yaa tax Thérèse fay wuy suñu kon yaay ñi ngi lay wax jërëjëf xale yëpp a ngi lay wax jërëjëf mamee ngi lay wax jërëjëf soxna Batoor nag ma yaayam daa ñëw léegi ni ma yaay aw ma kuddul yow sama wax yow laa koy jox ma ne ko lu tax mun ma loo wax yaay puy doyul li ma lay wax nag dinaa ko wax na bu baax ci li muy toog di ko biral sofi ajrat sofi ngaay miy toog ak képp koo xam ne yaa ngi ci foire bi yaay puy jërëjëf ndax nag lu mu sam foire lu doy nii alalu sëriñ Abdou Karim Mbakke bara maqale ak laa lu doy nii alalu sëriñ Fallu alalu nga ñëw wuy suñu jërëjëf salaam yaay daa guddi te heure baa ngi jeex la Sophie Ndiaye jërëjëf na ba ci li jërëjëf merci beaucoup yaa ñu jox salon saa yu ñu ñëwee bu nu amee gan firin ko indi waaye sama waa ji ajarat Sophie Ndiaye su ma la fekkee damay wax jërëjëf kenn du yow yaay puy jërëjëf ajaratu aji jërëjëf kontaan naa sama yaay salaam Ndiaye kenn du na bu bàcc bi heure bi jot na nanu jox sunu sang bi ndax heure foire day tëj may wax na bu bàcc bi jërëjëfal joxal ma Nabou Bathily soxna si waaw salaam joxal joxal salaam bu ko jox kàddu gi de indi ko mi mooy ma bàyyi leen ngeen wax man ma am parce que yéen mu boo dee waxal na bàcc soxna di nga téye ma jox la kàddu gi nga doog a wax waaye

ko ne ko yow la ko jox te nee na du benn du ñaar bu sa way jur wee rek teg nga ko fu kawe te nee na li ngay def ay moto nee na boo def 500000 nga koy solal lii la wax lu ñor la te soxna sa fi nii nag moo war a toogaay soxna Fatou soxna Fatou mi ngeen di fonk yaayam lu muy def ci yaayam da ci fonk way jur moo mën a yónnee nag suñu yaay bu baax soxna na bu baax bu baax kenn ko def ndax xam na loolu waaye nag suñu jàll ndax yaa ko def nag ginnaaw yaa ko def mais li nga xaar ñu jox la kàddu bala moo wax man ne ànd ak yaay Abdou Salam jóge ba Touba man maa war a nekk ok salaam nañ gàttal kàddu ci jëf gi mu jëf yëpp suñ ko dee wax fi la ñuy fanaan waaw ni gerte gi doxe ki bokk ci gerte gi tamit moom moom rek moo mën a mel ci tamit ñun sunu jotaay dafa am nu muy dox te soxna Fatou bi lii mu def dafa rëy ci moom mami peex mii nag mooy peex mii di doomi Ablaye Mbaye peex ànd ak soxna si jógee Touba ñëw ba fii ah man de wax dëgg yàlla ñu ne ma ko bañ a jox. mais jox ko parole ah, waaw jox ko amul parole may pex. salaamaaleykum mbooloo. nee na salaamaaleykum mbooloo. soxna Fat Bintou. soxna Fat Bintou. dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam. dañ koy ñaanal yàlla guddalaw fanam. cant gi nag dañuy ñaanal sëñ Abdou Karim mu sëñ Fall yàlla yokk ko yàgg yàggal ko fi. nee na cant gi dañuy ñaanal sëñ Abdou Karim mu sëñ Fall yàlla yàggal ko fi. soxna Fat Bintou kuy. soxna Fat Bintou kuy. nitu démb mooy nitu tayam. nattu teyam. nitam rek la man. nitam rek la man. man dama naan ko yaay danga maa jaaxal. man dama naan ko yaay danga maa jaaxal. nitam rek la bëgg. nitam rek la bëgg. nitam kumba sax soxna si da koy. nitam kumba sax soxna si da koy. muy nit ku sincère. muy nit ku sincère. muy femme authentique. muy ku ku diñ ko am personnalité. tànn bu mii na digganteem moom. tànn bu mii digganteem ak Soxna Fatou Bintou dama cee mat seede. dama cee mat seede. ndax Soxna Fatou Bintou day ñëw Dakar. ndax Soxna Fatou Bintou day ñëw Dakar. ànd ak man kër tànn bu almadi. ànd man kër tànn bu almadi. tànn tànn bu lu mu dul wax ak xateeg titi. tànn bu lu dul wax ak titi rek soxna Fatou Bintou Pouye la koy mu ànd ak sama maam maam Sophie. mu ànd ak sama maam maam Sophie. muy mag mu yaru sax kenn du ko wax waaye muy nit ku lislaame. muy mag mu yaru sax kenn du ko wax waaye muy nit ku lislaame. ku yaay bëgg mu bëgg ku yaay bëgg mu bëgg la ànd ak tànn fi wàdd ànd ak tànn fi wàdd ak soxna Kiné soxna Kiné ak soxna Mère Ndiaye ak soxna Mère Ndiaye ak ami soxna ami puy ku ku yaay bëgg rek bëgg na nag dañ koy bàyyi ak yàlla yaay nag dañ koy bàyyi ak yàlla la soxna Rokhaya Dramé dañ koy bàyyi yàlla dañ yàlla yàlla bàyyi koog sëñ Abdou Karim ndax moom ba muy ñëw ndindi ndax moom ba muy ñëw ndindi diplôme yàlla bàyyi bureau ba la tëj ni sëñ Touba rek yow mii nag li nga wax moy farata xam na ni nag sëñ Touba fay na ko xam na ni sëñ Touba fay na ko bëgg doomi sëñ Fallou bëgg doomi sëñ Fallou nit ñi bëgg nañ ko te mënu nit bëgg nañ ko ko am loolu nag grâce nag maam Safi mii moo ko liggéey dañ koy ñaanal yàlla dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam yow xam nga ni mënoo woon a ma ñàkk wax de farata rek nga fi damay jox sama damay keroog am nañ fa juróom benni fan Touba alxamis lañ dem ba altine lañ ñibbisi tubarkalla macha allah sëñ bi toog ñaanal la bay jooy ñu ñëpp ñu ngi toog kon nag soxna Fat Bintou na bu bàcc li nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm ñun Touba xamatuñu togg sunu ndekki day ñëw sunu añ day ñëw sunu reer day ñëw sunu njogonaku sax dañuy ñëw bu ñuy dem nga tegal ñu ay piis tegal ñu xaalis tubarkalla macha allah teral ñu yàlla la yàlla teral nga ànd ak sa yaay ji nag nga bëgg sa ndey lool nag li nga bëgg sëñ Abdou Karim li nga bëgg sa yaay ko raw ko nag dañ lay ñaanal yàlla sunu borom nee nag moom dañ koy bàyyeeg yàlla nee olof Njaay nee na yaay ju baax mooy jur doom ju baax nee na ne mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm yaa ngi ci cuub yi yaa ngi ci VIP yi yaa ngi ci brode prixe yi soxna mënuñu laa fay nee nee na mi ngi lay fay yal na la fi yàlla bàyyi. yal na la fi yàlla yàggal ci barke Seydina Mohamed nabu ba ci li mu boo nag mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm soxna si yow bu nabu waxul woon sax xam nga ne nabu mi ngi lay gërëm ndax yéen ñaar ñii altina ngeen ak talaata dara doxul ci diggante bi soxna Fatou Bintou yal na yàlla guddal sa fan soxna Fatou Bintou yal na yàlla guddal sa fan ci barke Seydina Mohamed barke sëñ Abdou Karim Mbacke borom makkaani man ak laa sa nabu ba ci li yal na la fi yàlla bàyyi ndax yow it da bëgg soxna Fatou Bintou yow boo géntee sax boo xëyee moom ngay woo bàccali sempara yal na la yàlla defal jàmm nga bëgg sa ndey dee toog nag teral sa ndey at mu jot nga yóbbu ko màkka di ko teral teral say rakk teral sa géwël yi ngay àndal kon nag yal na la yàlla teral ci barke yonent bi medul damay gàttal Sophie Ndiaye maa ngi lay nuyu ana waa màkka waa géwël siñor koo ngi toog

instant yi génn la ñuy def nii kay ñu dem. moom rek moom moom ko bëri ñu ko defee sànq rek dafa téye sama loxo ma toog ci suuf mu ne ma woo naa la ba sonn jotuma la lu tax ci Serigne Fallou daf may bëgg la alalu Serigne Fallou direct laa du jàpp jàpp Serigne Fallou rek laa bëgg barki Dembo Ndiaye laa dem ci sëñ Abdou Karim mhm. ziyaari ko mhm. li ma wis ci place bees yi moo ma ko jox ah? kenn waxatul loolu nañ ma def ni ma yàlla def rek mu noppale ku ko ci deful da ngay sonn lim leen wax sànq noo ko jàngate nee ngeen dajaloo ñëpp def association mu jàppale leen ñu jàppale ba pare mu ñu wax. lan la ñu mu defal waaw loolu yombatul. man de Serigne Fall yaay di dimanche bii di ñëw. bis toog ñëw leen ba Touba ngeen wax ne leen mënoon naa leen a jox kenn barkeel waaye du ma ko ku ñëw sa kër nga dalal ko sa bu ñëwee kas rajab dara suñu jaan biir yu góor yi sax day màtt yu jigéen ñi jërëjëf Serigne Fallou Ousseyn Bakar leen ko Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, yàlla yàlla barkeel. amiin amiin amiin yaa rabbi. nii la nii la soo jàddee nii la. yaa baax yaa borom yaa riis yaa baax yaa mën yaay sunu sëriñ. yaay booy amatina lu ndaw. sëñ Fallou yaay bu yaa mën eh, waay mami amati nga